parquet il paraît que loolu Sénégal rek la waaw retour de parquet aussi man yaakaar naa bu justice fonctionne normalement du. du am wala da ngay gis ay quatre retour de parquet Sénégal. loolu moom vraiment nga def fële pratiquement quinze jours. dañ koy ñaawlu ñaawlu carrément parce que loolu dysfonctionnement la euh, di baagante retour de parquet nga ñëw. vraiment on t'a pas nga demaat ñu woowaat la loolu euh, bu fekkee ne justice am na organisation bu baax parce que lu si bëri day ay déficit de procureur parce que juge boo xoolee aussi par rapport au problème procureur yi bëriwuñu mën nga ñëw euh, procureur bi wala waroon entendre ne nekk ci yeneen bagage wala amuloon jot pour déglu la entendre loolu lépp day nekk ay retardement ba tax état war na jëlaat recruter waat ay ay magistrat ba xam ne treize millions de sénégalais ñu xool ñaata magistrat bu nekk ñaata nit nga war ngeen dossier nga war a contrat de performance voilà parce que hmm. loolu état buy évoluer secteur yëpp lay laal. parce que boo nee voilà dafa war a am. Hmm. mais nag bu fekkee ñuy jugé dañoo ndaw il faut muy am ay retour de parquet parce que pratiquement dossiers yi mën na saturé procureur nit la day am ay ngant am ñu kii mais même si ñu xam ne sax procureur bon parce que parquet boo xoolee c'est un c'est un bloc bu benn parc procureur ñëwee euh, peut-être euh, keneen mën na ko remplacer def li mu doon def. parce que son interchangeables mais mën nga leen génne dugal benn pièce li nga xam ne bokkul avec les judiciaires parce que parquet. groupe la benn groupe la waay. nga kii bu ñëwee def kii mën na ko dugal keneen uh-huh. loolu c'est pas un problème mais nag en tout cas retour des parquets moom nit ñi dañ koy ñaawlu parce que day nekk loo xam ne vraiment war na Sénégal war na ko dépasser. day guddal procédure parce que la voilà. Hmm.